xam nga loi d'amnistie président Macky Sall ak premier ministre ak ay député ñoo ko mën a jël ñun mënuñu ko jël yow mënoo ko jël man mënuma ko donc ñoom suñ ko jëlee aussi mu intéressé leen ñu bu ko jàllee assemblée nationale ñoom la kese ñun dañ ci opposé wu. c'est pourquoi fan yi passé taxaw nañ loi boo xam ne dañu ko bëggoon jël ñu ne loi bi elle est anticonstitutionnelle ànduñu ci parce que day briser article 27 ak 103 bu constitution bi ñoom ñu jël ko yokku 10 mois seen